Eh, damaa ñaawoon ay moment mais damaa jàkkaarloo seetu ni nit du nax boppa nga xam ne léegi il est mignon mhm, léegi il est mignon di ba pare en plus il est attirant samay lay fa déjà dafa commencé xonk nga commencé xees tuuti parce que kilim bi may tëdd la voiture kilim nekk kilim nga xam ne damaa war a sant suñu borom parce que ku ñàkkoon nag moo am nag ku ñàkkoon am na léegi nag maa ngi sant suñu borom sant naa yàlla moo tax tey may am kontante parce que nit ki bala ngaa tooñ da ngay seetoo pare xool sa bopp man damaa ñaawoo daaw moom tooñ kenn mais léegi su ma neexee tooñ du di wooye nit ñi moche parce que léegi il est mignon voilà léegi dina wooye Pawlish mignon voilà. walla wes wes mignon voilà loolu laa bëgg a tudd léegi Pawlish mignon voilà. Okay, Pak. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Paulus Mignon wala noonu lay wuyoo. wala. Paulus Mignon wala. wees wees comme comme ko naan wala. wala non wala wees wees ba oui wala ne Paulus Mignon wala wala parce que léegi foofu laa toll en fait. Mm-hmm. le galant attirant Pawlish Mignon walla fa laa toll nag ay baaw yi fa nga toll nga nekk ndaw soo xamante ne nii dangaa juddu comme ni ñu lay déggee à chaque fois nga koy wax dangaa juddu fekk loolu bari pare fekk loolu bari yemb mais ngay jaayante jaayante boobu nu mu demee woon. jaayante c'est-à-dire mooy lan. nga doon bañ ku la sama samaam doon la sàngu sutura su bari ndaxte ni nga meloon à bas âge danga koy wax à chaque fois dangaa compliqué woon a nekkal. non du compliqué woon nekk parce que nit bu ñàkkee day yemale ay bëgg-bëggam te damaa yemale woon tamit bëgg-bëgg parce que damaa ñàkkoon kenn xamul sama sama ñàkk parce que damaa daloon te moom laa doon sonal ma jënd su ma mayee cent franc mel ne may téeméer parce que man boobu sama cent franc parce que nit ku ñàkk boo ko mayee cent franc kontaan doo wees si boo leen mayoon junni seen parce que foofu lañ toll loo gis niveau la sama niveau ñaar fukk damay kontaan. sonn woon sama maam dama jëndee mburu fukki dërëm toog fukki dërëm rek maa ngi kóol dama naan kafe waaw pare di sant suñu borom nag di sant fi ma jógee di gërëmaat sama maam di ko gën a santaat muy Bintu Dieng na ko fi yàlla bàyyi di ko sant baax a baax Bintu Dieng yal yàlla bàyyi ak sama samay ay dambaay samay tante umbaay aminta mbaay yal na yal na fi yàlla bàyyi bu baax a baax soxna Samba soo gisee man sama sama jaar-jaar man man duma ko ragal di wax parce que suñu borom nee na hmm? Matu wàññi sa volume tuuti s'il te plaît Matu Matu Faye Matu wàññi sa volume bi tuuti si tëpple plaît nii moo tax essayer comprendre hmm, soo nekkee ci àddina nga sonn suñu borom di la di la dàngantalu ngay am di daan am bu la suñu yàlla bu la yàlla mayee tuuti da ngay sant da ngay sant suñu borom suñu borom la may yàlla bu la mayee ngay doo ko waxee barki mu Muhammad dootu la mayaat billaa wallaahi dootu la mayat yàlla da nga ñaan di sant muy gë muy kontaan xanaa xaw yàlla day kontaan. may nga cant ko mu gën a bëgg. barki mooy si tey sa sa papa bu la mayoon xaalis yow sa papa bu la mayoon xaalis tey may la junni boo ne ko papa kontaan na papa yow nga dem màkk kii du reetaan sa papa du reetaan. ok ñun de nan ñun jàppee yàlla mooy suñu kilifa man de man mooy sama kilifa man. suñu borom bu la nga kontaan ne ko yàlla yàlla na yàlla fay sa xol day kontaan. nga ni ko yàlla yàlla na la yàlla fay sa xol. yàlla yàlla na yàlla fay sa yàlla foo jublu yàlla na fi yàlla jublu. ba pare nuyu ay xarit ku ci mel ne Jibril aleyko Jibril aleyko salaam ñoom Omar bul Xataab ñoom Modou Abdallah ay xaritam lañ suñu borom ne nañ ginaar am na ay cuujam mënoo mënoo ba ginaar ba ñu cuujam mënta ne suñu borom mooy ginaar gu mag gi moo uuf ñëpp man dama koy ñaan suñu borom ne ko yàlla yàlla la yàlla fay sa xol yàlla foo jublu yàlla na fi yàlla jublu. su ma neexee sax ne ko yàlla yàlla nga am bac am institution en informatique day kontaan day kont suñu borom na nga koy ñaanal bu la mayee da nga mu gën a kontaan ya man de man de man de man de moo moo tax man dama koy delloo njukkal di ko ñaanal parce que booba ah bu ko neexoon damay su ma neexoon lii yëpp dama ko foog yéen ñii ngeen ñëw sama kër maam maam déjà trois voitures ci tëdd ci clim dëkk pied dans l'eau hmm, walla ko il faut ma kontaan sant suñu borom damaa war a kontaan sant suñu borom baax a baax parce que yàlla moo ma def nii su ma neexoon def mu neex bu neexoon def ma gerte caaf bu neexoon def ma mel ni Ouzin gis nga Ouzin ni mel. attends yow sa diggante ak Ouzin Keita sax man ci laa bëgg ñëw parce que dégg naa da nga yor ñetti oto woo ko mu ñëw ko benn bi ma ko woowu xaw ma fu mu dëkk woowu ma ko lijjantiwu ma ko intéressé wu ma xam nga Ouzin soo ko gisee da nga koy yërëm parce que ni mu bindoo la dafay ñëw nax ma ne ma Pawlish ma ko ah mu ne ma xeex nañ man ak yow par téléphone. xeex nañ kay ba mu yóbbu la Ardo moom. loolu après la sax bu ma yóbboo Ardo ma yóbboo Ardo ci dóor ah maa ko oh, yóbbu naa ko Ardo ci ay oto loolu am solo nit ba la mënee ci ay dóor ko mën ci poos dëgg waaw ma ko waaw mu ne maa lay jégalu baalu àq man cousin baal naa la àq ak moom waxtaan ak man ba ne suwal tam xarit barke alxuraanu karim billaay wallaahi barke alxuraan télé laa nekk billaay wallaay ma dem seeraas jëlal sama bopp xar yónnee ko xar. ci ko yóbbu barki alxuraanu ma jënd xar ànd ak moom ne ne matu mu maa yëg ci kër gi matu moom sama kilifa sama grand la ne ma Pawlish ah, joxal li matu yi jox ko Ouzin nag Pawlish moo la ko jox mu woo ma ne ko noonu àdduna amul solo dèjà loolu def ma ak baax. nit ko amul boo koy dimbali dangay ngay kontaan man dama koy dimbali pour def ma ko pour wane wu c'est la première fois ma ma def ko. bàyyi naa samay xarit bàyyi naa ñeneen ñeneen mais damaa xam ne man ak moom dafa fu jaar ma ma ma ma wutal ko xar ne ko am ci tam bi tabax ci def ma ko tam laa ko def. da ko am jël xar mu xëy mu xëy ci suba gi ñëw bett ma def surprise sol ba xam boobu nga xam ne sama drap yëpp la takkal dafa yëbb sa dafa yëbb sama kii bi. palmaan bi palmaan bi dafa yëbb dafa yëbb sama moquette bi. sama kii foofu waxuma ci dara parce que damaa seet acte bu rafet la Ouzin ba muy ñëw billaay wallahi la barke alxuraanu karim ndigg laa tooy xepp xawma lu ko tooyal ndigg laa ngi tooy xepp barke alxuraanu karim ndigg laa ngi tooy xepp xawma lu ko nag fag mu gàllaaju xam nga nit ku tam xarit dafa nekk bis bu rëy bis boo xam ne dafa dafa rëy moom mënumaa jàpp mais xam naa da doon nax boppam lii moo oto boo ko may du gàllaaj du dara de maa ko yërëm ak ni mu bindoo te Ouzin xoola image bi damaa bëgg nit ñi Sénégalais xool Ouzin da dafa mel ne doon jooy ne ko da jooyut maa ngi tagg yaay muy jooy mu ne muy mel ne day jooy jooyul de xawmul xawmul lu mu ci jublu woon man nit kese laa ma yëkkati sama caay voiture rouge may ko may ko ko ne àdduna xam ko dama la ko may tey rek tax lu ma nit ki bokk ko lu baax na ko kon mu xëy suba dal mu xëy suba daal oto ba fii. ne ma Pawlish am na assurance xam nga dof mënut a weesu loolu nga jox ko nga jox ko oto mu ma lay am am na assurance ma ma ma def ma dagal ko assurance deux kii euh, deux mois ma fay douze mille douze mille dagal ko deux mois mu ñëw pour nga xam ne wérut nit ku la may nga koy laaj assurance xam ne do xam nga wérut. moom moo doon laaj pour nga dagaat assurance. waaw ma dagal ko ma xam ne kii ab dof la kon kon kii dof la. maama tax mu jaay xaw ma taxaa jaay xaw ma otti xaw ma da boo gisee mu yor ford sama ford xaw ma da koy peinture xaw ma da koy jaay sama ford man maa ko may te man naa ko ci dara ci ci xol bu sedd guy man damaa trompé. nan la la Ouzin Keita trompé. Ouzin naka te di bambara. léegi yow far nga teg ni Ouzin Keita njaago la. Mhm. damaa dem euh, kër Ndeye Gueye fecckat. Géejawaay kër Ndeye Gueye fecckat fii Mbéj. xam Ndeye xam nga ñun suñu yaay la man ak Ouzin. parce que Ouzin ci moom la nekkoon bi muy nekk ci les gazettes. waaw euh, benn maire ne ko ne ko euh, rakkam ji tey rakkam ji tey day def commu communion. day def communion Ndeye Gueye woo ko bi ne ko ma ne ko no la ndéegéey dafa ndéegéey wokk mee bi da ko man ma ma ma ma ma ma mel ne ku ku bële ku déglu wax ci waxtaan ndéegéey ni ko maa ngi gaar sama oto toppaat mee bi ne ko mais ça va Ousseyn fa rakkam ba muy nekk xale ak a bëggoon mbaam. mbaam mi doon fool moo tax Ousseyn bindu bindu mbaam gisoo mu way benn image way ci mbaam xuux. du ma mbaam mbaam xuux Ouzin mbaam xuux bu mag la Ouzin boo xoolee taatu gàtt taatu mbaam xuux la yor xool taat bi ni mu gàttee te nooxu. mais ma ne ko maire mu ne ma Ouzin Ndiago la Ndiago bu mag la mu ne wàllu yaayam ñooy làkkat mais wàllu baayam Ndiago la dama njaago la Ouzin Mendy la sant Ouzin Mendy. muy naan bambara la nit ki li nga doon waroo koo bañ Ouzin boo xool ni bindoo taatu taatu Ouzin ko taatu mbaam parce que taat bee gàtt nuux Ouzin xool loos wi xool bindu mbaam damaa bëgg ñiy monté ngir dem Rasulullah ngeen monté mbaam ak Ouzin ko xool ba xam ñoom ñoom bu Ouzin rombee mbaam romb leen di jàpp far que du doon ma bokk maa moom te na jantal maa gën a xew maa gën a suñu borom ma la nit ñi gën a bëgg ñu moom parce que moom borom bi nii dañ koy saari xeeb parce que parce que dañ koy jaawlee maama ko bi ñëw ndax ni mel kon du ma moroom. waaw man lan moo ma jaaxal mooy le fait que nit ki ñëw sa kër nga may ko oto mu dem meme pas trois jours 4 jours ngeen mel ni ay xaj ak muus. dool la mën tawee su nit ki baat dool la boo ko sangee sang ko ba set jox ko ganni laa mu sol nga jox ko ba caravane mu mu parfum yëkkati xaama jox ko ko teewul baat lay doon. moom bindu baat doola la yor moom baa doola la li mu def ni nag billaay wallaay barki alxuraan xoolal def naa ko te yàlla rek parce que dama ko yërëm ko yërëm moo tax ma may yëgati oto may ko oto xajoon na ci keneen de mun mënoon naa ko jaay 4 ko def mais dama ko yërëm ko may ko xam nga lu ma lu ma choqué. doon ko bett waxee police ma oto ñooñu vidéo ko envoyé ma ko ma envoyé ko vidéo bi loolu la repoussé di mer naan police maye ma oto mais garaawul may naa ko yàlla baax na. ok kon yow da ngaa seetaan vidéo bu Ouzin Keita di waxee loolu. waaw dañ ma ko envoyé dañ ma xoole girif girif girif girif sugu ma woo na police girif moo ko envoyé envoyé ma ko xam nga girif seytaan la moom ma ko envoyé ba xam ne ñoom ñoom ñoom ci même loolu ma ma ne am amul problème mais nag sant naa suñu ma dee ku ñàkkoon de bay may oto sant naa yàlla nag sant naa suñu borom baax baax bu baax a baax a baax a baax sant naa yàlla bu baax a baax sant naa bu la billaa wallahi baat dool la bu mag ma taata wu gàtt wee na muy noox baat dool la weesu ko sóor baat dool ba ñëw coow arrière dafa lekk baat dool sangoo baat dool la sëlma baat bokk baat dool la tëdd baat dool la di raxasoo baat dool di añee baat dool di laaboo baat dool di borosoo baat dool la mooy baat dool la baat mag lu metti dama def tey tu m'as déchiré Ouzin Ouzin walla Ouzin tu m'as Ouzin yaay hypocrite Ouzin Ouzin yaay hypocrite bu mag a mag Ouzin yaay hypocrite te benn hypocrite bi Ouzin yaay va te faire foutre Ouzin connard yaay imbécile Ouzin putain Ouzin yaay connard Ouzin yaay connard Ouzin voilà bon Ouzin Ouzin yaa yées Ouzin Ouzin bon yaa na ma yàlla attay Ouzin Ousseyn foo jub yàlla bu fa maa la ko de Ousseyn yaa bon ak sa taatu ne taatu mbaam Ousseyn yaa bon nga nuux yal na ma yaa àttay yow kayta kayta bi nga sant mendi naan njaaw nga sant yaa bon Ousseyn yal na ma yaa àttay yow bilaay yaa bon. nit ki nit ki dafa la teraanga xamoo teraanga ko amee nga naan maye ma oto doon kii Ouzin man lu may wanewu ci yow xanaa ma doo wanewu ci wanewu sa wanewu ci nit yow doo nit may wanewu ci yow yow doo nit matoo nit may wanewu ci ko ne ko lu gis nga naan ko dawloo jàpp ci yow dangaa bëgg mu dangaa bëgg mu dee oto bi dama la ko wóor may rek pour nga dee waaye nga jaay ko ma la oto un jour viendra Ouzin Ouzin tu bon sa sa sa weenu nor bon sa sull bu sew Ousseyn yaa bon say tànk yu jaawaloo mel ne xaru tàpp Ousseyn yaa bon cim yow. attends yow sa problème ak Ousseyn Keita dafa nekk loo xamante ne ni Sénégal gépp ku gis Pawlish loolu koy laaj ku gis Ousseyn loolu koy laaj est-ce que ngeen bañ a dugalati kenn seen diggante yéen ñaar. sama nekkul ci moom de Ousseyn man ma bàyyi naa ko man moom Ouzin moom fu mu Ouzin Ouzin fu jaay ma ko jaar xanaa xam nga Ouzin su ma amoon dix dix ballu piste ñu ma dix ko dix personnes moom laa koy dóor yëpp mu dee Ouzin bi waaw maa mu dee de Ouzin rek laa bañ léegi nit ku yëkkati oto buy jar 4 millions 500 nga may ko nga may ko ah, ah, nga may ko maamu ko million xam nga bindu maam la yor nga may ko mu ne may ko loolu damaa métti de tima doshi Ouzin Ouzin Ouzin yaay imbécile Ouzin Ouzin tima doshi nag yow Ouzin bett nga ma billaay waaye yow Ouzin yow baax hypocrite bu mag mooy Ouzin moo bon naaw woowu muy naaw nga foog ni moom Ouzin bi nu lëppaale la ko suñu borom bindee Ouzin day naaw rek Ouzin kenn xamul lan la muy noonu daal Ouzin kenn xamul lan la Ouzin daal kenn xamul la kenn xamul fu mu jógee kenn xamul lan la daal Ouzin mu naan tay takk jabar Ouzin kanam na takk. mais yow est-ce que du tooñ bi nga ko tooñoon fekk ko ci soirée muy tëgg concert bu mag nga fekk ko fa mu woy wayam nga ñëw jël bës waay bi ba pare génn si ses mbam bi topp la est-ce que nekkul loola la jàppal ba léegi. xam nga suñu borom moom boo nekkee star star rek ngay lu mu def ma yëg dama koy yàq bu suñu borom mu def ma yëg ko dama koy yàq moom day jeex. tàkk muy amee ma maa bi de man de maay star bi mm. waaw loolu maay star bi moom loolu la def daf yëpp maa ci ne star. dof yëpp maay seen star dof yëpp maay seen